am réewum lëmm la jàkkaarlool te ña convoqué woon sëñ Touba mu ànd ak ñoom du ñu ay député du ñu ay sénateur seeni ndombay tuutiwul ay gouverneur lañ te booba gouverneur doole ji mu am tey président de la république amu ko ndax booba gouverneur sañ naa jàpp rey te kenn du ko laaj pour pourquoi lu tax ñooñu ñoo àndoon ak sëñ Touba Xaadimu Rasuul bi nga xamee ne jug na dégg nga eh, boo demee ca jasaawu sakkoor koo xam ne ni nag eh, yaa ngi dund ci àddina armée nationale bu français ak ñi nga xam ne ñoo ko doon jël ndax sëñ tubaab bi nga xamee ne dem na jeewal nee na keroog la njëkk a gis ahlu badar sëñ Modou Habib ku waa ahlu badar di garde maanaam ku ne fii ci suuf bu la sumbilee mbaxanaak bu la ko summilul doo ko yëgal sa bopp réew mii nag ñoo toll foo xam ne maanaam complexe tubaab yi ak garaat yi te léegi dañoo bëgg a commencé yàq pas-pas yi di ko jaarale ci ndombay tànk yi mooy boo doonee ministre ñu ne la booy nuyu sëñ bi a toog ci suuf ndax li nga représenté tax ba ci sax président de la république boo ko doon ñu naan la waroo toog ci suuf ndax état nga représenté te damay seetlu ñiy kaas yooyu ak di ko défendre tey boo xoolee ci seen ginnaaw amul dara lu làqu seen ginnaaw maa amuñu benn masuliya benn responsabilité amuñu ko soo xoolee itam ci côté gis naa temps yële kenn takk der bu génn ci réseaux sociaux yi wax ne nañu xoolaat ndomb yi ñu yor ndax waruñoo ku ku ku jéggal sab sëriñ mbaa nga ziyaar ko mbaa ko mbaxana eh, war nga li xam mooy armée bi wala war nga nangam nangam pas-pas bi nu toppee sëñ Tuubaa moo nu gënal ay garaat ak ndombay tànk ak ay fii laa toll ak fële mënunoo fexe ba sëñ tubaa ku waa ahlu badar di garde maa ngi waat ci sëñ tubaa ne doomu aadama bu la summil mbax nag bu la ko summilul lépp a yem ci yow nun nag sunu pas-pas mooy sëñ tubaa ko njabootam fu ñu leen gis daan leen siyaar daan leen wormal daan leen raamal daan summi sunu mbaxana topp leen ci ginnaaw te kenn du ko sañ a bañ ndax kenn waxuñu ko kenn forcé ko kenn forcé wuñu ko de ñun ñooy toog xoolal kii président de la république bi muy toogal Serigne Saliou Mbacké Khadim Rasoul ak daraja yi mu yëpp dafa am loo xam ne ni complexe mouridisme te ñun complexe wuñ loolu te dafa bari détail yoo xam ne ni saa à dire ñi koy wax amuñu solo te réew mi léegi war nañ dem ci contrôle communication ñi nga xam ne ñi nekk ci média yi naan dafa am yoo xam ne ay caaxaan laak sumil ab sëriñ ak di ko baal muy bàyyi mu dem ak di déglu mais ñooñu buñ leen dégluwul damay faral di wax ne ku ameel nit bor te mënoo ko koo fay boo gisee ay ndonom fayoo ko ko lu ñu la jiñ yawa luñ la jiñ yawa sëñ Tuubaa miinu yaakaar nag waa ahlu badri na doon garde ku waa ahlu badri doon garde nag sa njaboot ak malaayika yi di la bëgg ko bëggee foofu waa suuf mu waxaale suñ leen dégg nga sëñ Moussa wax na ko ne ba mu xëyee euh, ba mu xëyee ba sënbal waa kot waa kokki sàndarma say ràbbal tubaab yey tubaab yey fokki nee na keroog la njëkk a gis ahlu badar ba mu xëyee suba dibéer lañu ko dar kon ña ko doon garde mooy waa ahlu badar mu ne keroog la la la wëy asamaan asama keroog la way asmaanu ahli badrin boole ko mu xaddimaat bu rëy bi nasri dégg nga yowmal xiyaam may ram ahlul ba ahlul badri moo tax damay ramu ji ahlul bahri sëñ léegi foofu dañ fay taxaw maanaam yowmal xiyaam may ramu ahlul barri moo tax damay ramu ji ahlul bahri kon sëñ tubaa noppi nag waa jéeri ji wàccoo nag noonu ñim doon ramu mooy ñi nga xam ne lam waxoon ni ayaa bahru waxid la tusallis fa rabbuna taala ani taslisi akrim bihi rabba li yajhad bi kaw nii abdaman yaxfiru danba wa kaw nii xadimal mustapha bahru maayon ba nun noo yay